wala mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fi ci madinatu Touba al mahrusa fi ci keur Cheikh Serigne Mountakha Cheikh hussein mbake mi nga xamne moy mooy maali xalifatul am di tariqatil muridiya ñu ñewon fi tay ànd ak ñi nga xamne ñoy délégation bi nga xamne mo moo jigéen Medina Baye ci digal ak nga xamne moy mooy xalifatul muazzam faridatu Cheikh mahmoud al Mahi Cheikh Ibrahim nias ñi nga xamne yoni fi délégation bi am solo kiko jité di Cheikh Sirajuddin Cheikh Ibrahim nias waye waaye feggoog nga xamne moy Cheikh Moustapha Niass di domam ki nga xam ne itam mooy Cheikh Baye Fall bi moom ñëw fi macha allah ñu ànd ak ki nga xam ne mooy opérateur économique bi Baye Ciss bi nga xam ne moom lañ jox liggéey bi aju ci wàllu tànt mbir na baay bi. ci tabarakallah ñu indi fi li nga xam ne nii mooy tonu dugub ak tonu mboq waaye indi ñeenti nag ak li nga xam itam mooy ñetti gëlëm yoo xam ko pour. préparé ko bés bi xam naa dañuy def rek mooy dugg ci biir incha allah indi leen waxtaan wi nga xam ne ni seexoon nañ fa rek nga xam ne tamit mooy kër sëriñ bi incha allah bismillahi rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara di kontaan di am mbégte gisaat la beneen yoon di ñaan yàlla yàlla nañ fi yàgg ñëw di la fekk ànd ak wér ak fan wu gudd ñu ngi fi ñëw tey ci suñ ndigali sëriñ Cheikh Mouhamadul Mahi sa xarit sa rak sa mbokk sa àndandoor ci yàlla bi ñuy yebal def na leen dem leen sama kër mag ngeen nuyul ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax te ngeen waxal ma ne ko namm naa ko waaye li may sori sori sori yëpp mi ngi ma jege lii na wax na naa la ko wax mu yebal ñu ñu ànd ak doomam Cheikh Moustapha Niass ak doomam Baye Khalifa ak jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ak sa doom ji nga xam na sa doom yi bopp la muy Baye Ciss mu jox ko liggéey bu mag boo xam ne keroog bi mu ñëwee seet si la nga ñaanal ko ci yàlla alhamdulilah rabbil alamin liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax a baax bu soobee yàlla am nañ yaakaar ne incha allah danañ ci gàmmoo bu ci yàlla àndee incha allah comme ni ko Ablaye Mbaye Pay waxee moom mi nga xam ne ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci sa kanam yàlla. indi nañu yóbbu ñu ci kër suñu yaay biñ demee mu jox ñu teraanga ju rëy teraanga joo xam ne duñ ko fàtte ñu ngi koy gërëm moom it kanam di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér di la wax ne la daal kontaan nañ bu baax ci yow sëriñ bi nee na mu lay gërëm di la ñaanal yàlla fu mu toll yàlla yàggal la fi nee na tiitar nga pour l'islam tiitar nga pour diina ji tiitar nga pour Sénégal moo tax fu mu toll rek nga yëg ko nga ñàkk koo yëg mu ngi lay ñaanal ci zahir mu ngi lay ñaanal ci baatin ni nga xamee ne moom it mu ngi koy sàkku ci yow kàddu yi la waxoon ne su ma ñëwee nañ la ko wax ñu lay gërëm bu baax di kontaan ci gis la kontaan nañ trop gis la te waa Kaolack yëpp kontaan nañ ndax heure bu ñu yëgee ne ñi ngi ñëw rek ñëpp dañuy wax ne ñoom la ñuy demal wax dëgg yàlla ñu kontaan nañ bu baax Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke macha allah Mbacke alhamdulilah. mu ne dégg nañu kàddu yi bu baax yëg nañ ne sëñ maa yi ñoo ngi koy xaasal cant ak ngërëm cant ak ngërëm ci li ñu bokk ne alhamdulilah rabbil alamin ne ñoo ngi ko ci xaasal ak cant am na ko ci xaasal ak cant wallahi wallahi cant ak ngërëm wallahi bakke ne di yëg na tëm taxawaayam bu baax a baax tubaarkal wallaay wallaay wallaay jukko yi yi ñuy tànn yëpp ne jëfe na ko ci loolu rek ay ci am solo wallaay mbékk ne gën ji mindeef borom taggewu ko lu muy jukko ju rafet jukko ju rëy jukko ju rëy wallaay ci sëñ maa yi dëgg la dëgg la ngeen nugulul ko ko te fayal ko ko santal nu ko gërëmal nu ne li ñu bëgg a yëg ci nit te mu gënal nu ne yëg nañ ko ci moom jërëjëf xoolu tedd na ci moom bu baax a baax Mbacke ne doonte jotaay yi bëriwul it ne liggéey bi rek la ne ba mu ciy toll ne moom mooy ñëwal boppam waaw waaw waaye xat-xat yi rek xat-xat yi rek loolu rek la waaye yéen a jàngi fi yéen jàngi fi parce que baa fi warlu gaa ngi fi ngeen seeral ko bu baax baax baax ñu ko ngi fii rek ne kenn jiitu ko ci moom lislaam dong la fi nekkal moom dong lañ fi nekkal fi jaar rek. ne euh, liggéey liggéey jaamu boromam liggéey yonent. jaamu boromam liggéeyal yonent bi rek. loolu rek moo ko loolu ne loolu rek a fi indi woon sëñ borom loolu la fi ba la fi bay ci loolu it la nekk fas yéene ko ànd ak ñoom moom dong lañ fi nekkal ne euh, jaamu boromam liggéeyal yonent bi rek. moo ne loolu rek a fi indi woon sëñ Tuubaa yàlla liggéeyal borom loolu la fi ba bay ci loolu it la nekk fas yéene ko ànd ak ñoom ak ñiñ ko bokkal seqoog ñoom ñoom ñi ñu ko bokkal seqoog ñoom fas yéene ko ànd ak ñoom waaw waaw waaw wallahi wallahi wallahi di sant ci taxawaay bi ngeen ànd moom di leen ca gërëm ni ngeen jàppee sëñ maa yi ne kilifa lu mu taxaw taxaw daa war a am ñu màndal ñu bokk ak moom la ko tax a jóg loolu nag mooy yéen ñi toog yéen sant gërëm gërëm wala voilà mbokk yi kon ni ngeen ko ni ñu àndoon ak yéen fii ci Madinatu Touba ni ngeen ko déggee noonu ci waxtaan wi nga xam ne euh, fàttali nañ bu bëri ci démb macha allah Cheikh Mountakha ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk wéram waaye Cheikh Mouhamadoul Mahi tamit kazalika di leen jox dig daje incha allah ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا هن ما الأبس والسفر صلاة في كل سار وفي ذا فارهما